Euh, internet euh, Kawtef Sénégal comme ni ngeen ko gisee ñu jóge ba Dakar ñëw fii ci Louga donc actuellement ñu ngi si hôpital régional bu euh, Louga ngir seet fi ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee ay gaañu gaañ si boobu la accident ñu leen di masaw bu baax a baax ñu ngi toog ki nga xamante ne mooy Abdourahmane Cissé su ma jumul loolu la ñu lay massaw bu baax a baax di la wax rek di la ñaanal tan jàmm ak salaam parce que kenn bëggut lu ni mel parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañ mais nag ndogal du wees comme niñ koy waxee te suñu borom moo koy teg donc sant yàlla bu baax a baax ndax am na si ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan voilà donc ñu ngi lay euh, mastaw bu baax a baax a baax est-ce que mu nga ñu retracer li nga xamante ne moom mooy accident bi. waaw jërëjëf soxna si ñu ngi lay ziar wax amiin ci ñaan accident bi waaw daanaka day. maa am la waaye dara umpuma ci lépp maa ngi jàkkaarloog moom macha allah ñaanal ñi ci faatu ñaanal ñi ci am ay gaañu gaañu suñu borom yëkkati leen mbaam silaamlaal kees bi li ko waral yëpp mbaam la mbaam daal moo nekk ci kaw tali bi di jéggi dem bay jeexal voie gauche bi ci yoon bi jóge Saint-Louis freiné waat léegi bi mu taxawee xam naa ni dafa fekk njaganjaay bi di egsi ak xel munul taxaw mu mbëkk ko léegi bi mu ko mbëkkee dama xamul bar rek couponnement bi dafa rocceeku xaw ma def ko mbëkk perte équilibre bi mu ko mbëkkee après la ma wut si ama diggante boobu day gaaw man tam wàcc tali bi ma wàccee fi may wàccee tali bi moom mu ngi wàcc tali bi daw ndax. chauffeur nga loo doon dawal mooy bis bi. camion bi mooy camion plutôt. Hmm. noonu la demee daal ñu daje ci suuf si. nañ ko fa mu ñàkk bakkanam moom tamit. mu doon loo xamante ne lu métti la euh, camion bi it euh, li nga xamante ne mooy njaganjaay bi daanaka dafa jeex tàkk mokk ru mbaax la def comme carcasse. waaw hmm. ah, noonu la demee parce que soog bi dafa métti oto yi ni ñu dalantee moo métti.